bikum njiiti réew mi Macky Sall jooyloo na waajuru étudiant ya nekk Chine ginnaaw bu mu leen waxee ne mënumaa andi seeni doom vox populi moo ñu ko xamal janoog taskatu xibaar yi la ñu xamal ñaawlu li ni mel ne njiiti réew mi Macky Sall tas na seen yaakaar a abandonné na seeni doom ñu nar a dee rek source a yéen kaay dëggal ko na njiiti réew Macky Sall kay li wax wane ko ci ak tëleem ngir jëli doomu réew Sénégal ya nekk Chine jaxase na waajuru jaaxle gu ci la ñu nekk jamono ji El Hadji Malick Gakou grand parti ne Macky ak ñim àndal li ñu war a def yëpp defuñu ko konoon ñu àndi xale yi waaye comme nee na moom fëttale maa ngi woo sénégalais yëpp man Malick Gakou ñu nas ay pexe ngir jëli suñ doom yi kàddoom yaa ngi ci laas yéen a kaay l'observateur mel ni ku naan leen ay Ablaye Wade kenn du moom su fekkoon jamono ji mooy président bu Sénégal jëli xale yi doyut ko sax gàllax ndiku fat-fat mu rek la ko ayaw seetal yéen a ngi fàttaliku musiba fitna ba amoon ca réewum Haïti Ablaye Wade fa demoon jëli waxuma sax sénégalais ya fa nekk doomu réewu Haïti ya ña xamutoon fuñ nekk ak jaaxle te dana andi Sénégal tey ñoom ñooñu le xam na ñu ci am jëkkër fii Sénégal xam fi ay njaboot ña ca des ba dem ñibbi waat seen réew ñu bari lañ woon makki nag fukk ak ñett dong dong dong képp mënu koo xandi critique yéen a kaay ne ñoom étudiant ya ne nañ bëgguñu dara lu dul del si Sénégal les éco yéen a kaay na leen seen waajur yi de ñoom ñu ngi yuuxu fii Sénégal di sàkku ndimbal ñu andi leen seeni doom bala ñoo bàyyi bañ dee ñu andi niw yi xale yi na leen ñun sax bu fekkee yàlla dogal nañu feebar ba dee ngir yàlla bu ñu kenn lakk suñ niw yi na ngeen ñu suul ndax su naa ñoom lakk rek lañu xam a kaay na waajuru ndongo yi na nañ far force fra force doole mbaam nañ leen handil seen i doom tribune yéen a kaay na ñoom kay fa ñoo jaaxle enquête yéen a kaay ne waaye état nguur gi makke gaay mi soppi nañ waxin de ak doxalin ginnaaw waxin wu ñaaw wañ waxoon ba sénégal yëpp ñaawlu ko doolu ñoo ngi nas ay pexe ngir jàngoro ji bu mu dugg ci réew mi seen matuwaay yëpp jël nañ ko jëwriñ ji ñu dénk wàllu na la doon xamal janoon na ak taskatu xibaar yi leeraleen na gis nga suñu réew jël nañ ko te tey ji ñaanuñu ko yàlla waaye jàngoro ji bu fi duggoon tamit mën nañ ko régler ndax hôpital Dantec principal ak yeneen fa ay jumtuwaay ngir dalal fa képp ku jàngoro ji dal ndax xoddeeku ca ba nga lakkalee fagaru tamit moo gën faju moo tax Macky jël ay matuwaayam te mooy yéen a ko monsieur ministre est-ce nga ne jàngoro jii ñuy wax coronavirus mooy Ebola bu Chine rek ñoom ñaar bu dalee mën ngaa dox ci mbedd mi ba yàgg rek nga ne fàtt ci suuf daanu sedd guy jàngoro ju bon ta garaaw la nay lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne réewum Chine gërëm ko waaye comme moom kontaan na ci Macky Macky du ko wax na ko pour man ma kontaan ci yow sama xale yooyu nekk sa réew fexeel ñu ñëw wala sax Macky su fekkee mënut ko mu sàkku ndimbal ci réewum France wala beneen réew bu ñu jëli seen doome ñu jëlaale sénégalais ndax réewum Algérie ba muy jëli ay doomam jëlaale na doomu réewu Libye loolu yëpp ay xarañ nekk président am jàmm ay xarit ci yeneen réew mooy tax nga mën koo xam léegi lu tax Macky amul loolu moom a kaay jàmm del si na gannaaw fitna jafa amoon talaata fi mu toll ni tey policier ak sandarma yaa nga fees dal ci dëkk ba ku jóg ñu rëq sa ba nga réglé l'observateur ne fukki policier ak juróom lañ ca gaañ fukk ak juróom ñaari doomu aadama ñu teg leen ca loxo ay millions yu bëri yàqu fa nay leer la leer ba ne dàng ni jant su baar mooy mairie bu ngee xoox tappala labaj marché yu xamul fenn moom la leen gaañu tuumaal libération moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom le quotidien mooy dialogue national bi plan Sénégal émergent bi ci boppam moo ko bloqué ñañu bloqué seen liggéey toll si juróomi junne ci këru liggéeykaay yi ci Sénégal Sénégal ba tax l'observateur ne dàq liggéeykat bëri na léegi ci réew mi de liggéeykatu koppawel ya ñoom ña ngay nettali coono bañ daj ginnaaw buñ leen kajjee ña wut liggéey bu jaarut yoon mooy ay xale yu góor yu sol tëli sandarma taxaw ci kaw tali di arrêté oto yi laaj xaalis ndekete yoo waxuma la waaye ASP sax nekkuñu ko teg nañu leen loxo l'observateur moo ñu ko xamal li ñu xamal moom direct news mooy campagne njaayum gerte ren gi baaxut santut a compte feeñal na ne dañoo toppale mbuxum xalalu askan wi yoon dal seen kaw ma dal ci stade yéen a kaay fekk fa gànna Gueye ak Sadio Mané ñu xaw yoonu nekk champion France ak Angleterre ca seen club ya sunu lamb yéen a kaay xëy di ñu xamal ne Gris Bordeaux ba moytu du bëree de ndax juróom benn weer a def ci saison bi juróom ñaari at nag yoo xam ne def na ci année blanche bëreewut moo ko nar a yoot moom ñaar fukki combat ak ñaar la fi am ñu mbuqi ko fi juróom yoon tut mu dee ak ñaari combat yoo xam ne daanuñ ko daanut ak fukk ak benn daan ma daanee ci l'observateur bi ñuy wax xibaar bu garaaw ko wax sax doo ko gëm ah. yow seetal benn waay daal moo xam doom bu jigéen bu am fu fukkat ak benn xale bu jigéen ba ñëw na ko bàyyi may ma juróomi dërëm rek baa jël yar di dóor xale ba di ko dóor ba xale bu jigéen ba doxee fa tàlli ñaret faatu ñàkk bakkanam allah paaba teg nañ ko loxo ba tribunal bu ndakaaru ma ngi ko doon xàtte waa ja nag Alpha Umar Diallo la tudd waa ma ne tafaara gaaw bàyyi may ma juróom nga dóor mu dee bu la ñaanoon cinquante mille est-ce que koroon du reyaala yaay ja